asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziar leen baalu leen àq di leen ziare ci màggaluk Daarul Moxti édition 2024 niñ ko baaxoo nag di amale ci saa bu màggal gi ñëwee ñuy topp njabootuk maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal daaru di dem ci seeni kër di leen nemmeeku di leen ziare di fa taasu barke di xamitim ñom fi naka lañuy ñuy dundale bis bi nga xamni ni ci la serigne Touba Cheikhul Khadim dajé won ak maam cheikh Ibrahima Fatim Mbacke damal daru ca Ndar di bis bi nga xamni ni ci la serigne bi ñibbisi ci geej gi te sakku won ci maam no mu ñew Ndar mu gis ko bis bobu nak Cheikh mamadoul Fadal Mbacke moko sakku won ci ci mam maam no ci khilaf ak serigne Modou Awa Balla Mbacke ngir ñu japp bis bobu di ci fatliku di ci fatliku digënté maam Thierno ak Cheikhul Khadim seenub gissé ñu magal ko ci atum 1954 ba nëga ni ci fukki fan ak juroom ci wër wi di wëru baraxlu renitum itam ak muy fukki fan ak juroom ci wëru baraxlu ci atum 1445 depo gitim muy 26 février atum 2024 niñ ko baaxoo di amale rek tey jii nii lañ ko amale ci njabootuk sëriñ Ibrahima Jaxate sëriñ Ibrahima Jaxate nag bokkoon ci mag ñi nga xam ne nii itam foboon nañ léppam jébbal boroom daaru waaye mu féete woon ak doomam ji nga xam ne ni moom mooy sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke nekkoon koo xam ne nii itam mënoon nañ ko tuddee bëkk néegu sëriñ Cheikh Awa la ba itam lu baree baree baree bari ci ak njabootam moom sëriñ Ibrahima Jaxate ci biir kër sëriñ Cheikh Awa Balla la feeñee rawatina ci Ndakaaru mu nekkoon itim ko xamni itim itam soxlawul won dara ci ak dundam ndax leppam itim dako fabon rek jaglel ko jambari domi maam tierno joju di Serigne Cheikh Awa Balla muy buggul won dara soxlawul won dara lurut ngeureumam ba taxna keur sax amuko won ngir jëmi Serigne Cheikh Awa Balla mbake aduna itim di dox ba suñ borom fay ko ci liggey bo mu don liggeyal Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké moy ak njabotam am nañ keur ci dekk bi di daru Muxti di dëkkub mam tierno moom itim ak njabootam dem na ba jaxasoog njabootuk maam Thierno ndax fu ñu tuddee sëti sëriñ Ibrahima Jaxate dañu tudd sëti maam Thierno ndax ñoo séq sëti loolu itam day wane na rek liggéey la boo xam ne nii daal kam doon liggéeyal di sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke naxu ko fay na ko loolu itam moom moo waral itam tey jii nag ñu ñëw ci kër gi nga xam ne nii kërug famille la waa njabootuk njaxate ñoom ñoo ko séq ngir jagleele ko sëriñ Ibrahima Jaxate waaye di ci xoole itam jëmmi sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke sëriñ bii ñu nekk ci suñ ginnaaw kenn rek la ci ndax itam sëtub ah, sëriñ Ibrahima Jaxate la waaye sëtub itam sëriñ Cheikh mm, Awa mm, Awa la kon loolu day firndeel ne rek sëriñ Ibrahima Jaxate sëriñ Cheikh Awa Balla moom doon liggéeyal eh, fay na ko ndax sëriñ bii ci suñ ginnaaw seede la ci ndax loolu day wane ne njaboot gi jaxasoo na sëñ Ibrahima Mbacke ñu tuddee ko sax moom itam maamam kon loolu itam day wane ne liñ doon wax rek lu lu wér la moom moo waral itam nag biñ ñëwee fekk nañ fi waa njaxate ñu toog ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi nii ginnaaw buñ ndékkee ba pare ñoom ñëpp itam toog nañ di jàng ay alxuraan ay salaatu ala nabi lépp jagleel ko sëriñ Cheikh Awa Balla Mbacke maam Thierno ak sëriñ Ibrahima Jaxate dañuy jox kàddu gi sëriñ sëriñ Dia Njaxat moom itam di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 jullit di mbokk talibe yi ñu leen nuyu leen siyaare ci tour seigne ibrahim Mbacke mi nga xam ne moy borom makkaan mi teefu borom daru sëtu borom daru comme ni ko sëñ bi leeral rek fii mu toog di waxay ak yéen di daara yoo xam ne borom daru la waye daara askanu njaxate mu melne ci sama fatali ko ren jii mooy 30 ans yo xam ne ko ñu magal ci kër gi tan sabab kër gi mi kër go xamné suñu wajur ñoko sabab lu won 1976 sëñ Modou aw ball Mbacké yalla dogal yalla yalla yekul yaram comme ñu wax ko Ibrahima Jaxate waj mami sëñ Ibrahima Mbacké mi ñu tuddé ko ko ak sama wajur sëñ musa Jaxate ñu bokk ndey ak bàyyi mu doon ñaar ño xamné fa foofu tek ñu ñi def ñu takal ko ci lenn lu kenn ki def bala ko bala ko bala ko def morom yëg ko ci lañ ñëw to door musi gi màggal si gi dal ko suñu aw balla jamono ay kër ga xat lool suñ mu ne yeen de wër leen bokkatu ci kenn di nga am makam wax ay gëna ko moom waaye wër leen bokkatu kenn daal leen boole ku ñu wax seen ceerno kay mbaraka jamono yooyu fii ay siraan na fi nekk booba dëkk bi fii la yem mu ñëw fi natt ñaar paaka jox ko ñëw seen kër ñi am si jom lool taxaw ca temm ba taxawal ko miire ko def lañu war a def te jamono yooye ak léegi bokku ndax noo gën a dëgg la xëy na ñoo na gën a neex jamono waaye noonu a jekku adduna ci ay ci ay ci ay moyen waaye nag ñoo na ëpp yéene foofu nag ci loolu ñu di màggal màggal njëkk màggal fii benn ginaar lañ lañ royoon benn ginaar tey dem na ba ay nag la wax ak ay ginaar ak ay xar ndax fi may wax ak yéen ñett ñaari nag mi ngi fi yeewe ak fukki xar ak juróom ak téeméer ñaar juróom fukk kër gi ni mel nii sëñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne mooy doy suñu maam Thierno Mbacke di suñu jarbaat waaye di suñu Ibrahima Jaxate eh, mën naa ne at mu nekk bàyyi mbool eh. na moom at mu nekk fi mu màggale mu yëpp ak bokkam yëpp ak bokk jaxate yëpp taxawaay boo xam ne ñi nga xam ne noo ko seq ak moom sax mun na xaaj bi lu ci ëpp moo koy def moo ko njabootam ni ko sant baax di ñaan sa borom guddal aw fanam tam jël barké mamam té su ko fi mu melné kër gi tay ji ku fi ñew soxal dana sédd ba fàttali ay ceeg nan mel ndax man na fàttali ko ak mu njëkkee magal ci fi kera yaakar na li fi nekk ëppul fukk nit tay ay témer témer ñoo fi daje lepp ab taxawaayam ak pastéefam ak japp kum japp borom doorum ak ndigal ndigal woo ci ndigal waajuram ci mam ciarno mo waral li kon ni ko sant bu baax waaye kër gi di kër go xam kër wa njaxata la sun maam mi nga xay moo jur sun wajur sëñ Moussa Ndiémé ak sëñ Ibrahima Diakhaté ak ñeneen ñeewat tudd ko Maley Maram Guèye njaboot gi ñu bàyyi sët yi ak doom yi ñoo booloo def ko këru famille at mu nekk ñu daje fi di màggal def seenu ñaq di fi def ndajem famille di leeral askanu Diakhaté ak asan Maley Maram Guèye ni mu ak diggante borom Dóoru ak borom Touba ak ak sëñ Cheikh Balla ñuy ñaan yàlla na yàgg lool yéen ñu ngi sant seen taxawaay bi ngeen taxaw ndax fi ngeen jógee sori na ñëw ba fii jël ay image bu bër bu nett la jaar jaar borom daru ak jaar jaar euh, sunu maam loolu am am nañ ci ak rafet lu baax a baax yàlla na yàlla barke seen liggéey te leer barke seen Tuubaa jërë ngeen def maa ngi toog ba ci kanam. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi El Hadj Maam na Mbacke di ci teg sëñ Ibrahima Mbacke mi nga xam ne moom la boole ak noonu. xam naa wax ji li ci ëpp kilifa gi wax na ko kon daanaka jërut euh, sori xam naa wax ay kàddu tuuti rek ci taarixu euh, kër gi ndax barab bi day yàlla dafa dogal bi nga xamee ne suñu way juree muy Alla Ibra Jaxate ak Serigne Moussa Jaxate ñoom ñaar jox nañ leen ko yàlla dafa dogal biñ ci defee seen doole ak seen kàttan ba yi kera bi nga xamee ne def nañ euh, bâtiment bii ba yàlla dogal ñu yegg ci lu ko xadd suñ jaxat mii la sama baay woo baraag bu mu amoon këram la dajji kon loolu pëste bu mu amoon ci la dajji ñëw ñu xadde ko néeg bi kon loolu jar naa leeral bara bi itam buñ fi masaa nekk la Ibrahima Jaxate magam di sëñ Moussa Diakhaté ak seen jaraaba sëñ Mor ñoo fi daan nekk ci doo ci dukkee fay ca kër lañ daa xiiwloo ci ba jëkkan kër maam Thierno Mbacke laa jóge di ñëw fii waaye loola ñoom seen posture ak seenu gis-gis ah, bu sori te xan nañu téye ko jàpp ci bu baax a baax te xam ne bis dana ñëw bi mu yegsee fii itam kon ñun war na noo sant yàlla baax a baax ñi nga xam ne ñooy seen i sët di eh, seen doom nu gën cee góorgóorlu te gën ak ndax bis bi ke bis boo xam ne si wenn saan la wuy boole yaari picc ndax moy ñëw màggal bisu daaru musi bi waaye tam ñëw dajé fi ah bokk yi dajé fi kon loolu am solo la ah, ñi ngi sant bu baax ñepp di gërëm ñepp di ñaan sëriñ bi itam suñu borom yàggal ko fi te xam saga ndax sagal na lool nun ñu bokk ak mom kon nag na ko ñaar sa aw faram te yàggal fi kilifaam gu mag gi xam ne moonu boole moom ma jërë ngeen jëf. kon sëñ Ibrahima bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo leen nuyu lu bari te di leen siyaar di sant suñu borom bu baax ci bis bi mu bis bi ñu dajee di bisu eh, cant yàlla di bisu eh, mbégte mu rëy ci ñun. ndax li tax bis bi am ñun ñu bok ci kër borom dar musi ak képp ko di talibé rek bis bi sa bis la te bisu mbégte la na bis bo xamné ni bi eh, Cheikh Ahmadou Bamba démé ci tukki bi ba ñëw ba jakarlo bi mu ñëk jakarlo borom dar mu mi nga xamné ni mom mom la bayé won eh, yoonu wi mbégte moomu dara gënu ko rëy kon eh, loolu mooy bis bu gën a mag ci ñoom kon bis boobu moom lañuy ñuy fàttaliku waaye muy bisub jaamu yàlla ndax la ko sos ak jaamu yàlla waaye muy bisub mbégte waaye muy bisub kóolute tamit ndax xam ngeen ne sëriñ bu mag bi moo wax ne Cerno mooy sama përëgu ndeyjoor kon bisub mbégte la ci ñun di bisub jaamu yàlla ci ci ñun Cheikh Mouhamadul Fadal jàpp ji jàppaloon ñu ko. joxon ci suñ modou awbal ngir ñukoy def ginaaw lool nak fi ñu tok li suma eh, kilifa yi wax rek doy doy na ci sax waye ma ngi soññ rek kep ko xamne ni ci askan yi nga bok wala ci eh, keur mam ma lay wala kër maam Moussa Ndiémé ak fo mën a rek ñu lay soññ ci ci bis bi xamne bis bi kat bis la buy dem bis la buy dem boo xam ne dara du ko téye te dara moom te dara mënu koo téye moom danga nga jàpp rek moo moo moo dem nga am ci yiw bu bari nga téye sa bopp ñaay dem dem rek ndax ku dox moom nit ñi dox kon nag maa ngi soññ képp képp képp koo xam ne yaa yaa yaa ngi déglu sama kàddu rek maa ngi lay soññ bu baax baax ñu gën koo jàpp te gën ko fonk xam ne mooy suñu bis ñun buñ ko jàppee moom mooy suñu bis ñu ko moom lañu yàlla euh, jox kon nañ ko jàpp te maa ngi sant bu baax nag euh, mbokk yi yëpp nag di jiital sëñ euh, njaxat jaxat mi buñ ko tuddee rek mook sëñ alaaj cerno mi ak Baye Alsaan ak Baye Sëriñ Jaxate sëñ Maodo Mahfouz Jaxate ñu ngi leen sant bu baax ndax ñoom ñoo ñoom ñooy sunuy mag di sunuy baay dañoo waroon toog ñu deful leen lépp waaye liggéey bi ñoo ko jiite ci fànn yëpp ñoom ñoo tax lii dem bàyyi njaxat jaxate lu ëpp weer ngi nii du du du toog ay bis te ñëw fi xool kon ñu ngi leen sant bu baax a baax di sant mboolem soxna yi di nuyu bu baax soxna bi Bintu Mbàkke mi nga xam ne mi ngi di fi suñu kilifa euh, di ko joxub cër bu baax te di ko nuyu bu baax xam ne euh, moo fi suñu euh, cër ñun. kon ñu ngi sant bu baax a baax nag di sant ñëpp di ñaan suñu borom ñu fekk waat ko ay déwén yu baree baree baree bëri te di ñaan yàlla lépp luñ ci def rek ñu gën ko def li ñuy sakku ci bis bi rek du lenn lu ngërëmal sëriñ Tuubaa te ñun ñu bokk ci kër borom daal moo ti ñoo war a gën a góorgóorlu ndax bu sëñ Tuubaa ci boppam moo ne képp ku ànd ak maam na boo liggéey danga nga am ñeenti fay suñ borom daan la fay ya yonent bi sallallahu alayhi wa fay la man ñoo fay la Cerno am nag fay te dan la fay bi ñëwee ba nettali ko borom daaru borom daaru da wax ne sëñ bi de du wax dara ngir lu neex nit lu wax rek ko wax loolu ab soññee la ci ñun bu baax ñu war a gën a góorgóorlu baax ci borom daaru musi bi ne bis te am nañ ci pas-pas ak yaqin jo xam ne nii bañ ko dara def ba at mu ne dañ ci yok kon lolu Euh, loolu rek doy na sax bu fekkoon séentuwuñ ci dara rek waaye ñu ngi ci gis ak yokkute ci saa rek doy na sax kon maa ngi soññiwaat mboolem jullit yi ak mboolem mbokk taalibe ak mboolem sama mbokki mbokk yi ñu ñu gën cee jàpp xam ne bis euh, man fi ma àgg na lool kon ñu ngi ciy sant bu baax a baax di sant yéen sant tamit yéen euh, télévision yi Kajoor TV ak Mawahibou TV ñu leen sant bu baax ci jëf ji yi ngeen jëf yàlla nañ ko fekk ay déwén yu bare bare asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf euh, sëriñ Ibrahim mbàkke jërëjëf itim njabootuk njaxate gi nga xam ni ñoom lañ fekk si woon muy comme niñ ko waxee rek muy njabootuk euh, sëriñ ibrahima jaxate ak sëriñ moussa jaxate ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal bis bi nag comme ni ñu ko waxee rek bisub maam Thierno la ak Cheikhul Khadim waaye Serigne musaa ci boppam dégg ngeen bu baax ni ko sëñ Njaxate waxee wax ne daal ci 1976 la ñëw kër sëñ Cheikh Awa baal la mu xamal ko ne yéen bokku leen ci ñi dañoo war a nekk di xat-xatloo ñu jox ko bërëb bi kon 76 ba nëgë ni ñeent fukki at yi moom topp na kon boobu ba léegi ni ñu ngi fi di dundal li nga xam ne moom mooy ndigalu Serigne Cheikh Awa la sëriñ Moussa ak sëriñ Ibrahima itam bu baax nee nañu woon duñ duñu woon ñaar kenn lañu woon ndax itam soo masaa gis kii da nga gis ka ca des loolu itam firnde bi rek mooy lii leen sëñ Modou Awa Balla Mbacke boole ba njaboot gépp itam tudde ko këru njaxate famille bépp itam nekk ci sëriñ ni ko sëñ Ibrahima waxee itam ñi ngi sant ba bu baax a baax mboolem taalibe yi di sàkku ci ñoom itam ñu jàppaat ci kër gi ndax kàddug maam Thierno la te itam moom ni mu gëmee waxi maam Thierno noonu la gëmee ne rek kër gi dana dox màggal gi itam dana wéy te fii itam danañ dem ba di ko coow ci daaru muxti kon loolu itam taxawaay bu am solo la ñi ngi sant bu baax itam mboolem soxna yi nga xam ne nii ñi ngi fii di defar ay bernde di dundal li nga xam ne nii moom mooy mm, dëkk bi ngir itam képp koo xam ne nii dox nga ba egg si fii saa boo ñëwee mën eh, xewlu xeewlu ñi ngi sant itam mboolem ñi nga xam ne nii ay daay rëñ lañ nekk ci kër gi di def ay jàng yore organisation beeg ñëpp di sant tim mbollem ñi nga xam ni ñom ñoy mag ñi nga xam ñom ñoo nek ci kër gi yoré ndonul Ibrahima ak sëriñ Moussa diko sam ba ba ba neugani di sant tim site internet yi nga xam mom lañu andal euh xamle TV eh, Kayor TV ak Mouahibou TV hmm? ak Touba production waa sëñ bi. dama am ma fàtte leral muy ci Ibrahima dama ko fàttali mu soññee ci liggéey kër gi ak taxaway bi. ndax sëti Malay Mbaram Gueye yi nga xam ne ñoo seq kër gi ay téeméeri téeméeri téeméer la ñu te li ñu waxoon kenn ku nekk sa cotisation at mu ne góor 15000 la jigéen si 7500 tamit na la jigéen jigéen ñoo man góor ñi te suñu Ibrahima Mbacke mii exemple la ci noonu ndax xayma yu ne képp lañ ci ñàkk ëpp mat na 1 million li mu ci fay ci luyaas bi mat na 1 million. gàtt yi neefee moom andi ko mu fukk gàtt ak juróom ak ñaar ak li ñu war lépp boo ko seetlu lu mu gàtt at mu ñàkk doon millions kon te sët la nuy sët kon 15 millions yi xëy dañ ko war a jox at mu nekk war na ko war na ci taxaw kenn ku nekk war nga foo ma nekk Sénégal te bokk sët yi loo mën dëkk bu jigéen nga bàyyi ko dañu taxaw liggéey bi jàll moom mii moo fi njëkk woo fi mujj ba desee ñetti fan day ñëw bu sax bu ñu xëy fi lañ koy bàyyi ma ne ba ngoon mu doog a dem kon xam naa mun na mel na moom wax dëgg yàlla waye war na góorgóorlu ba soñu sun bop kenn ko soñu soññ sa njaboot lañ man def ak luñ mënul ba taxaw ci ba kër gi kër gi suñu bëgg mu àgg mu àgg fi donc nga fàttali ñëpp jërë ngeen jëf waaw euh, jërëjëf ci sof ay kaddu rek ci kaddu bàyyi njaxat njaxate yi kaddu mi ngi jëm ci képp ku askanoo ci sëtu mam man lay maram euh ma ngi soññee rek ci di sof sama kaddu ci bàyyi njaxat xamne ne man de pas-pas bi ma ci am man waxna waxna ko fi bay ndaxat yefi duñ ci dara man duma ci dara ñom duñ ci dara kenn nekk ci dara waye man lima gëm te japp ko moy mag ñiko sos ñoy lepp ñoy fondement bi dañuy faral di wax ne tabax bala bala bala dëgër fondement bu baax waye ñom ñoo jamonontek nit ñu baax ñu wali yu baax jamonontek jamononteeg sëñ Modou Bal ak sëñ Seexoo Bal lëggéeyal leen ndax ku lëggéeyal waaju baax euh, saw ñaq day des ba keroog àdduna bi di dañ ba keroog àdduna bi di tukki képp ku bokk ci yow bu góorgóorlu tuut suñ borom dana ko baaxal comme ñun ñi ñëpp loolu seen barke rek moom mooy ruus tey bâtiment bii de bañ ko fi def ñoom ñaar ñëpp boo boole woon li ñu am lépp kenn ci ñun rek ëppal na leen fukki yoon xaj na nag moom àdduna mooy doxee noo xam ne nii dafa yéeme waaye li ma ci soññe mooy képp kuy déglu sama kàddu na nañ ki laxasaawaat te góorgóorlu xam ne eh, lii de jëf la joo xam ne nii ku ko jëf bu ëllëgee suñ boroom fay la ko kon lii bàyyi njaxat wax maa ngi ciy soññewaat ñëpp man de sama yéene moo doon te loolu laa fa yéene te li fii ma koy def li mboolem lu fiy dem ak mu mën a demee man man maa koy def loolu yi laa fas yéene te xaruma ci kenn nag te lenn tax ma koy def muy fii ma yàlla boole di askanu njaxate bi su ma sañoon lépp lépp lépp lu ci waaye di def rek man maa koy def ndax cër bi biñ ma jox ngir sëñ ba loolu ab soññee la ci man soññee bi mooy. doo toog rek ñu ne la mbàkki sëñ mbàkki yaay suñu kër déedéet waaye lu ñuy war a def rek man maa cay jur te du ma nangu kenn man ma ci waaye maa ngi bokk ñi bokk ci groupe beeg ñi ci bokkut ak ñëpp rek ñu fonkaat màggal gi at mi am am at ñu ne la quinze mille loolu dëgg nag euh, lu waay néew néew la néew la néew la war nga koo man te jigéen ñi ñu ngi leen sant ndax ay jàmbar lañ ay jaxat wax na ma ko ay yoon ne ma jigéen ñi ñun ñoom ñoo ci man nii ñuy mobiliser di di jël di mbaar mi fees dell ci ñoom bu góor war boo ko fekkoon góor ñaa ngi koy def kon fii kenn du fi xaj waaye nag boo liggéey suñu borom ñi jëf rek lay fay ñi ngi sant bu baax it ñi nga xam ne nii dañoo dugal seen adde te ñëw ñu te ngant tey leen ñooñu ñi ngi leen sant Euh, waaye ñi nañ ci gën a góorgóorluwaat bu baax a baax a baax rek ñi gën a góorgóorluwaat maa ngi ci sant bu baax euh, démb rek laay wax yuusu ne ko euh, lii lii li li li li ñu def bâche yeeg yëpp buñ ko xooloon mën naa tabax fii ab bâtiment waaye nañ ko defee nii rek ndax buñ demee ba fi def dara damaa bëgg ñun ñëpp ñu ànd noo ko def ndax man su ma gëstoo xool xool bâtiment bii bàyyi xel ne suñuy mama ko fi defon te ñun def defaguñ fi dara damay am kersa te lu yomb la lu yomb la buñu buñu amone passeport bi deug bala dewen dara taxaw fi lu deug dëgër deug dëgër waaye léppay man su ma su ba xol suñu suñu mag yi suñu cerno baye njaxat ak baye alsan ñi toog ak suñ maruma fos may nek Dakar te gën te gën ñu ci son gën ci sonu seen dom gën ci sonu seen seut gën gën cee son ñoom damay rus waaye ñoom dañoo dañuy mag xam li xew rek kon maa ngi ciy ñëpp wax ji nag daa njaxat nañ ko dugal ci groupe bi ñëpp dégg ko xam ne bis bii moom mooy sunu bés mooy sunu bis bu ñu ko jàppee mooy sunu bis bu ñu ko bàyyee mooy te man fas naa yéene bu fi kenn ku sant jaaxate képp doon teew man dinaa fexe moom bu bu ñëpp bàyyi woon it la moom man dinaa ko dundal ndax ndigal sama kilifa laa ci am muy sëñ Maam Coor moomu maa fa dem bëgg koo laaj ndigal mu ne ma demal ca ca sa kër maam gi nga taxawu ko te te te te nga woo ñëpp ñuy ñëw fa déwee fa màggale maa ngi sant nag sama mbokkteel bi nga xam ne ñoom laa bokkal sëñ Tuubaa lii fi am lépp ñooma baas yi biñ ko calculé quatre cent nangam yi li ëpp na gàtt yi lépp man bàyyi ñax jarut kenn di ma sant ndax dara lu ci bàyyi ci sama poste bi dëggu ci amut sama mbokk taalibe bi ma sëñ Tuubaa ba boole ñoom ñoo def lépp liñ ci dajale kenn xamoon nu mu toll yuusu euh, Jóob mii jëwriñ ji moo ma ko wax démm bi ma indilee kay bi ci liñ ci dépassé mu ne ma gàtt yi rek six cent mille la bas yi quatre cent cinquante mille Euh, ganaar yi ñu jënd muy téeméer ganaar ak juróom fukk moom it quatre cent cinquante mille ak ndox yeeg boisson yi ay fere yoo xam ne nii ak euh, oto yi ñu luyee ñëpp daanaka li bàyyi njaxat yaakaar naa ne buñ noppee ba xool suñu billet moom dana ëpp 3 millions waaye man dama ne leen man duma ci dellu ginnaaw te fas naa yéene moo ko fii bu dama ne yuusu buñ daaw fukki xar lañ jëndoon ren fukki xar ki ki juróom bu déwénee day doon ñaar fukk wala fanweer ganaar yi daaw téeméeri ganaar lañ jëndoon mhm. ren téeméeri ganaar juróom fukk bu déwénee incha allahu bi te yàlla bay ñu fi dana doon ñaar téeméer wala ñaar téeméer ak juróom fukk waaye man du ma ci dellu gannaaw mukk lépp day yokk te loolu parce que bi ma ci am du mbooloo mi ñëw waye su fi ñatt ni doon tewit man danaa yok lepp ngir suñu mam yi sante jaxate te soson ko waye ngir suñu mam ciono mi meñ fi jox ndigal waye ngir suñu bay yi nga xamni ñom ni ñoo yor liggéey bi te gëñu ci son bay ñaxat mi lu upp wër nga ni toog ay bis ñoo fi diko balé bale to ndox mi li gën metti ci liggey mo koy def ndax ñun bu ñëwé rek dañu fekk lepp mat dañu ñëw rek du dugg man damay and sama bass ñëw rek bass dugg waaye bu fekkoon dañuy ñëw rek bala ñoo baas danañ bale danañ sonn danañ wuti ndox danañ def kon ñu ngi leen sant bu baax a baax waaye njaxat maa ngi lay sant di sant El Hadj Thierno di sant Baye Alsane ak Baye Serigne Diakhaté mais nga xam ne gu suñ groupe bii moom moo fay mag waaye gone yi miin ko ba ko lépp bëgg rek wàcc ba toll ñoom di seen maam di seen i baay wàcc ba toll ñoom lépp maa ngi ko ci sant waaw ah, ak sëñ Modou Mafos ak waa euh, Dakar yi soxna Ndeye Diakhaté ak soxna Fatou Samb ñoom laa bokkal nekk foofu waaye li ñuy daj ci màggal gi lépp juróom benn weer nii dimanche jot ñu di luñ bis bi buñ bis buñ ko defee mu jëm kanam ña ngi koy def ma loolu maa ngi leen koy seetal ay jàmba lañ te buñ ñëwee ba léegi nopp loolu waa Touba it noonu ñu ngi leen sant bu baax jigéen ñi gis nañ bi soxna maam soxna maam jaxat waxtu ne ma ngi don jokk moom mu may wax fu jigen ñu toll ak lépp ngi leen ci sante bu baaxa baax di leen sante bu baax man sama xol set na ndax li ngeen fi def lepp ngir sama sag la man ndax ku wax ne eh, señ Ibrahima señ Ibrahima señ Ibrahima dama ci gën di tuut to kon man ma ci wara gëna gor gor góorgóor loolu rek moom laa jàpp ñi ngi ñaan suñu borom eh, fekk ñuko ay déwén yu bare insha allah Yeah. Uh-huh.